ko suma technicien Wow, Tesan, abis video kan Tesan. Gambar sama xol sedd na lool lool lool jërëjëf di naan jërëjëf sëñ Touba ndax lii nii wax dëgg yàlla mu fa mel ni sama xol sëñ yëpp wane na Fatick yëpp ay ay murit lañu Fatick yëpp siin yëpp ay murit lañu ñëpp sëñ Touba lañu yaakaar boo gisee mobilisation bi nga xamante ne moo nekk di suñu ginnaaw ci kanam ak yëpp nga xamante ne te suñu xol tëdd na lool lool lool lool lool jërëjëf sëñ Touba xanaa di saan seen rek di ñaanal sëñ Sidi Mokhtar Mbacké yàlla na yàggal ko fi ak ak sëñ Jëmb Fall ñu sant ñep di gërëm ñep way way sëñ bi li mom sama xol sedd na ci lool lool lool jërëjëf sëñ Touba. bës bi mom nanaka mësu tant la rek ndax nanaka kuy yegg sëriñ bi ba bës bi ñëw tay yaakar na war nga am mbékté bu baaxa baaxa baax ki mom day woné day bi rek waaw ñu gor lu war rek gëna santat bi bu baaxa baax te xamné ne bu dul wam mom daanaka kon lislaam dana jeex ci àddina kon bu ko defee ñoo xam ne jërëjëfu sëriñ Touba boobu mooy jaamu yàlla rek ndax Serigne Touba léppam jaamu yàlla mosa doon kon képp koo xam ne da ngay naan jërëjëf borom Touba li nga ca war a jiital mooy fexe sàmmoog sa diggante euh, sa sa ak yi nga xam ne moo war sa digganteeg su suñu borom. bu <laughs> fexe aussi sa sàmmonteeg ak yi nga xam ne moo war sa sa digganteeg jaamu yàlla bu ko defee rek ah ñu gën cee góorgóorlu te xam ne sëñ Touba moom mënuñ koo fay xanaa di ko sant rek di naan jërëjëf borom Touba rek jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba barke borom Touba. wër wër wër jërëjëf jërëjëf ak sa jërëjëf bëgg nañ noonu da lay ziar maam waaw di sant gannaaw bi ngeen sante gërëm leen ah. sant ku tedd ki ah. tey ñu leen di laaj lan ngeen di yéen ci bés bi tey ak nan ngeen gisee bés bi caravane bi nga xam ne sëñ Sidil Mokhtar yebal na ko tey fii diwaanu Sine fii ci wàccaay magal gi tey nan ngeen gisee tey bés bi maanaam ñun murid dañoo amul ku dul moo tax maanaam sëñ bi dañoo war a jaral lu ne ah, te yaakaar naa képp ku gis mbooloo mi rek di nga xam ne tey bi mobilisé nañ maanaam dëkk yi ci àll bi dëkk yi wër Fatick yëpp ñëpp mobilisé nañ ñëw ci caravane bi nga xam Sëñ Sidi Muxtaar moo ci jox ndigal Sëriñ Tuubaa yëg ci bés bi waaw sant a baax a a baax ndax sin dafa am tey lu kawe kawe a baax sëñ Bamba moom a baax a baax a baax barke Xaadimal Mustafa yàlla ñu ko fekk ay diwoon yu bëree bëri daf yaa taw féex baax a baax a baax barke sëñ Muhammad sallallahu alayhi wasallam sëñ Muhammad yàgg fi lool ci wér barke sëñ Touba Cheikh Ibrahima jërëjëf maam Cheikh mi ñu dimbali Cheikh Ibra daf ñoo dimbali ndax lii lépp moom la bala ay Cheikh Ibra daf ñoo dimbali ndax li lépp moom la kontaan ci bés bi ndax amuñu lu sëriñ Serigne amuñu lu dul Serigne Touba Serigne Touba la ñuy yaakaar tey ak ëllëg Balla ay sax daam kenn du moom billaahi wallaahi moom kenn la dañoo kontaan ci bés bi ndax nag képp kuy jullit laay waxu du ma ne du ma ne duma ko yemale ndax Serigne Touba du tarixa Serigne Touba amul frontière Serigne Touba addina la sëriñ Touba addina la. lii lépp moom la moo tax ñuy bége tey bu ñu toogee ba tal ko wala ñuy bége yàlla ak Serigne Touba yàlla ak yeneen tàmba ak Serigne Touba Serigne Touba taxawaayu Mouhamed rek la taxaw taxawaayu Mouhamed rek sallallahu alayhi wa sallam moom la taxaw ndax nag ñun xamuñu dara dañuy nii nettali rek waaye tubaar tubarkàlla boo xoolee ci mag ñi nga xam ne nii da leen di déglu di taataan ci ñoom nga xam ne Serigne Touba taxawaayu yonent bi la taxaw Serigne Touba moo yaatu. moo xajal ñëpp mënoon a yemale ci boppam mënoon a yemale ci njabootam def rek ngir jaam ñi texe dimbali jaam ñi rek sama xol dafa fees. maa ngi leen di delloo siyaar bi di bëgg di kontaan sama xol dafa sedd yokk ba yëg ko ñun sëñ Touba rek la ñu gëm soxna Astou Ba mii nag ñu nekk ak moom fii muy daayira maam jaara ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant ndax ndaxte ñun ñëpp tubaar fakkaala macha allah moo ñu gindi ndax dañoo réeroon. waaye ndokk nag bi ñu gindee nag topp sëñ Touba ba mu jeex tàkk waaye jaajëfa Cheikh Ibra Fall laa ilaaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jaajëfa maam say Ndiaye ay su moom fu ñu jëm. caravane bi Sine ak Saloum dañ cee kontaan di xam ne rek waajtaayu màggal gi mat na sëkk ci sunu gis-gis sunu yaakaar ndax Sine gi bu melee ni ne yor ay taalibe murit lépp mokk na waaw. ñoo ñaanal yalla sëñ Sidi Mokhtar yalla na fi yag te wër ak mbollem julline mu nek ak fallu mbub ak mbollem talibé mouride nek fi ak Mudir ñu ngi leen di ñaanal ñun ñun suñu xel dalna xamnañ ne magal gi matna ba paré soñu suñu bop ba paré di soñu mbop mbollem jigen di waral ne bu reuy bi jigen na ko de jigen mo liggéey ligay bu reuy bi muy soxna jaaratu la Mariama Bousso ku ne xamna ne bi yombul. ni Serigne Touba doone tànneef noonu la maam Jaara Buso nekkee tànneef ndax lii ku ne xam na ne lii yombul xam nga ne mbooloo mu toll nii góor ak jigéen mag ak ndaw ku mën ak ku mënul ñëpp di jéem yàlla di leen dimbale ñuy dox lu du lu ndaw te ku ndaw liggéeyu ko kon li ñuy def mooy di soññu jigéen ñi sama mbokki jigéen kenn ku ci ne fa nga ne yàlla boole la sa borom kër rafetalal séyal te yàlla tax defal lu baax te yàlla tax ndax lu waay def lu ne yàlla fay la ko li soxna jaara liggéeyal doomam ju tedd ji nga xamante ne àddina yëpp a koy bëgge maa ngi soññ sama mbokki jigéen ñi kenn ku ci ne foo na nga rafetal sa diggante sa borom kër rafetal sa diggante say dëkk rafetal sa diggante ak kuy jullit ndax jigéen mooy jur ku ne mooy jur waliyu mooy jur xutbu samaan mooy jur président de la république mooy jur ilimaan mooy jur ku ne waaye ñun nag kii suñu royo yaay mooy soxna su tedd ji soxna jaara mariama buso may sonn sama mbokki jullit yëpp rawatina jigéen ñi kenn ku ci ne na nga fexe ba roy soxna jaara ci ay lu baax jëf lu baax wax lu baax du jëw du garam place dal lu dul liggéeyal sangam bu tedd ba ba suñ borom fayé ko khadim rasulullah kon maa ngi soñ sama bopp di soñu ñëpp kuy jigéen na nga fas yéene liggéeyal yàlla tey yàlla tax yàlla fay la ku liggéeyal yàlla mu fay la kon ñu ngi bégge bu baax a baax a baax a baax télévision bi di ñaan yàlla yal jëm ca kaw ca kanam te yal na leen yàlla may wér may leen kattan ba fu ñuy Serigne Touba yàlla may leen ngeen taxaw fa ñu ngi ñaan yàlla caravane bi fu ñu ko dégg yal nañ fa dégg télévision bi ci barke Xaadimu Rasuul bëgg si lool waaw bëgg si lool si barke woon tuwaa dañ ciy bëgg lool barke suñu Bàmb lii musa am Fatick waaw lii musa am Fatick bëgg si lool sant Serigne Touba wér waaw léegi sant Serigne Touba rek dool di dool di xanaa bañ sante yàlla julli ci yonent bi sant Serigne Touba ak Soxna Jaara kontaan ci bés bi rek ñun ndax ñun waa kër Maam Jaara dañuy liggéey rek ngir Serigne Touba ak Soxna Jaara fu ne ña fay taxaw dañuy dem xel koom dañuy liggéeyal sëriñ Touba di liggéeyal Soxna Jaara fépp foo xam ne rek Serigne Touba woote na fa ñun waa kër Maam Jaara dinañ fa teg sunu tànk ànd ak sunu jawrin bii Soxna Asuba ñun xidmati Maam Jaara lañ tudd كنا حمنا خدمتي موي الاسلام ليغي وا كنا حمنا ليغي لا كون نيل ليغي رك غير سيرن توبا اك سخنا جارا كون تان لول تي بيس بي نا دي نان سن سيدي مختار يالنا في ياك لول ماكي دا ياك كو تخاوي ndax li mbekté la l'islam bekna l'islam amna ndam l'islam tay jogatina te ginnaaw ak Serigne Touba ah, moo tax lislaam jóg tey jërëjëfati Serigne Touba. jërëjëf sant Serigne Touba rek di santati Serigne Touba di santati Serigne Touba rek ndax lii moom ku ne xam na ne Serigne Touba amul morom ndax Serigne tubaa ba muy dem géej yàlla la àndal ak rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ba muy ñaan amul ku kenn ku topp ci gannaawam naan amin waaye bi xewal gi ñëwee àddina yëpp ñoo ko bokk mbiru Serigne tubaa nag mbiru lislaam la mbiru Serigne Touba nag mbiri rasulullahi sallallahu alayhi wasallam la li nii ñun jullit yëpp a ko bokk. du murit du tidiane du khadir du layen du ñaseen ndax ñepp ñoy bëgg serigne Touba kon li ñu serigne bi defal ñu diko wajale magal gi nga xamantene jot amul ci magal gi ba ñu xam serigne Touba lan mo waral yoon wi kon suñu defé li ñew fi fatik duñu def luñu sant yalla di julli ci bi di sant serigne Touba ak soxna jaara di ñaan ne li yalla na jëm ci kanam tay yaram dawna xol yu sedna xol yu toyna amul mak, amul xalé kenn yegul dara lu rek sa xol fess del ba lo mën ci bes bi tay nga diko def di sante Serigne Touba rek di santati Serigne Touba rek di sante Soxna Jaara rek jeuf contane nañ bu baax di ñaan yal na sax yal na sax ci barke maam Jaara bu suuf li mom ken amul lo ci wax tay Fatick yëpp a région de département Fatick ñëpp a amul Njuujuuf amul Njongoloor amul gin amul fo xalat tay ci Fatick rek ñu ngi fi muridi Fatick yëpp ak ay julit sant nañ bu baax di ñaan li yal na jëm ca ca kanam ci barke sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke naa kontaan rek ci bés bi sant Serigne baax rek ak Soxna Jaara ñun man su waruma wax nag na sama jër wi wax na ba pare waaye xanaa kontaan rek di sant rek Serigne Touba moom yooni Serigne baa moo rëy te yaatu te ñun murit ñun ñëpp ñoo bokk yëf yi waaw ñu ci sant rek xanaa comme suñ jëwriñ wax na rek waruñoo am leen luñ ciy wax sant rek waaw waaw ndax ku ne xam na ne sëriñ Touba doomi Maam Jaara la waaw kon nag ñu ngi sant rek ñun waa kër Maam Jaara yi dañoo kontaan ba mënuñoo wax gannaaw bañ sant yàlla te julli ci Seydina Muhammad ñu ngi sant suñu Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ndax lii tey neex na ci muy murit ba muy tijaan ba muy xaadir ba muy laayeen Cheikh Ahmadou Bamba ku xam jëfam jëf ak fa mu jaar yëpp nam lekk lépp la ko nekkal kon ñu ngi sant yàlla tey sant si sant suñu borom di sant Seydina Mouhamed bu baax a baax a baax yàlla ñu yàlla defal jàmm suñu xol sedd na torop torop torop torop torop torop ñu ngi sant bañ yàlla may ñu fekk ñu ñaan yàlla yàlla fekk ñu ko ay déwén ndax lii sag la sagi siin la ndax lii bu am Fatick tey ji dafa doon siin sante ko yàlla bu baax ñi ngi sant yàlla sant suñu jëwriñ di sant murit Fatick gépp di leen sant yéen ñi fi ñëw tey jërëjëf ngeen jëf jërëjëf Serigne Touba Cheikh Sidil Muxtaar euh, digle na mbooloo mi dégg nañ ko digale nit ñu bennoo defe naa ne feeñ na ne rek bennoo na lii génn ci mbooloo su bennoo googu amutoon kon du mën a am. kon yég yëgu sant yàlla bu baax a baax bi nga xamee ne taalibe yi ak jullit yi maase nañ ci dégg ndigalal Cheikh Sidil Muxtaar loolu te topp ko waaw. kon alhamdulilah yëg-yëgu mbégte tey jii ni ñu ko gise euh, ñi ngi ci fatik wara def waxtaan wi ci kanam tuuti bi ñu agsee fekk nañ ñi nga xamne ño fi nekk ci kër sëñ Touba gi ak kër sëñ Mourtala ak talibé yépp ñu and maireu dëkk bi yitt euh, genn jitu mbolo mepp andando ne nañ wër ci dëkk bi li ni nekk lu am solo lo xamne ci sensibilisation magal la bok fenn fu nekk danañu euh, yek ne kenn ku ne da nga laaj lu xew ñu ne murit yi ñooy waajal màggal gi loolu lu am solo la ci sensibilisation wu màggal gi. waaw ñu gis image Fatick yi yaakaar naa bu fekkee koo xam ne karawaan ak seegul ci moom dana laxasaayuwaat gën a góorgóorlu moo xam ci at mii la moo xam ci meneen la ca toppit mooy danañ ci doole dooley Serigne Touba ndax mbooloo mi tey kenn ku nekk ngi ci waxuma la dara waaye suñu gone yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun di dongay Al Azhar di wax laa ilaha illallah muhammadu rasul sallallahu alayhi wa sallam loolu lu ama ama am solo la te symbole l'islam la ba tax kon yaakaar naa ku ko yëg tey jii sa xol dana sedd dana wane doole l'islam parce que manifestation wala defile ci l'islam dafa am solo ci njëlbeenu l'islam yoon sallallahu alayhi wa sallam bu it masaana jot dafay digal jullit ñi bu ñuy julli si ñu jaar ci yoon wi suñu wàññi jaar ca wee parce que loolu dafay wane doole doole jullit yi lii tamit lool rek lay wane yëngal murit yi nekk ci dëkk bi def bis bo xamne ne dañ koy yek nga xamne peut-être bu done événement politique sax du mëna a ni nga xamne kon li ñu xam ci dëkk bi la ci gëna a xumb lépp dafay dellu ci l'islam nga xamne ne moy yëngutu moy yëngal dëkk bi kon loolu nek lu am solo lo xamne ne dal lañ ci Thank you. Ahmadu Bamba xam ni sëriñ Touba rek ay sëriñ Touba xam ni dafa liggéey yàlla fay ko tey jii nag ñun waa fatik ñun ñëpp génn nañu ci kër yi wàccu nañu lali jox ko gani ànd ak karawaan bi dox ak ñoom di sant Serigne Touba rek di sant Serigne Touba rek tey sant nag jaajëfal maam si xeer ma Fall Lamp Babul Mouridina. caravane macha allah macha allah vraiment moom euh, li ñu ko nemmeekoo ci cinq ans yi loolu la ñu gisaat fii ci Fatick Fatick vraiment desul ginnaaw ndax boo koy xool daaw xam nga euh, li ñu gisoon mooy euh, dëkk yi ñu jaar yëpp dañu wane seen bopp. tey euh, lii Matar Ba def loolu la Abdoulaye Wilane defoon ca Kaffrine noonu la ñu gisoon ca Tambacounda kon mu mel ne daal euh, sëñ Bamba li ñuy wax rek amul tànk ginnaaw euh, amul tànk ginnaaw tànk kanam la am loolu mooy gën di firndewu ndax caravane bi bañ ko commencé yàgg na ren mooy juróomi at waaye yaakaar naa ne toujours dañuy gën di gis muy gën di jëm kanam li ma mën a wax daal mooy tey sëñ Tuubaa la warante na boppam daal